Heavyweights.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 li leen neex ay waay te xale yooyu ci biir appartement yi nañ ca nekkee maara deetaali su meeku ba ne dung ma ne la ca topp ëpp naa wax ci rajo xale yi burle feu rouge yi la ñuy def rax ci dolli bu ñu nekkee seen jëf ju bon yooyu dañuy filmer seen bopp ma ne dëkk baa ngi toj laa wax tasar la xew ca ndar ca dëkku maam kumba bang romb na doy waar ay xale yu góor ak yu jigéen ñoo fa dajaloo woon ba su korite bi weesu ci ab appartement ne ne dung ne ca li leen neex ba vidéo yi mujjee teeri ci whatsapp nga ni moo tax fi mu ne élément police bu commissariat central bu ndar mujj ñoo dugg ci mbir mi waaw góore waay ba fi mu ne nii sax jàpp nañ ci juróom-ñaar ci ñoom ci juróom-ñaar yooyu am na ci ñeenti xale yu jigéen mbir mi nag nee ñu nii la demee groupe xale yu góor ak yu jigéen yooyu ñoo organisé woon ab ba su ci ab appartement meublé bu nekk ci rutu xor candar ndar soirée boobu nag nee ñu ab soirée privée la ay way samba xale yooyu ci biir soirée privée boobu nekkee ca seen yu bon ya aajo bokk ci organisateur ya moo doon filmer mbir yi ci smartphone am cey gone aajo moomu nag li ko dal mooy daa mujj publier vidéo ca statut whatsapp am laataa mu koy supprimer fekk booba am na ñu ko capturer <laughs> apa ñu cee gaaw naka noonu nag ci la vidéo yi dal di tasaaroowee jur naqar gu rëy foofee ca ndar bi police yi jotee ci éco la élément commissariat central bu ndar dal di ciy ubbi ab l'enquête gannaaw bi ñu informé procureur bi police yi defee investigation dal di càmbar ci la ñu tegee loxo ñetti góor KD am 18 ans dib élève noonu ngaa yem ci bigi de PAS am 18 ans dib tailleur noonu ngaa yem ci ciseaux yi de MF 18 ans dib ferrailleur noonu ngaa yem ci weñ yi de bi ñu leen gësamee interrogé leen la ñu balancé turu ña ca dal ci appartement boobu fukk mbaa ñu ëpp ko ña nga ca woon ay waay waay suñu xale yi police yi tamit jàpp ci ñeenti jigéen TN 24 ans MM 24 ans ND 17 ans ak RS 19 <coughs> <coughs> man réew maa ngi toj laa wax ñoom ñëpp nangu nañ ne bokkoon nañ ci soirée boobu ca bésu korité xale yi jigéen yooyu teg ci ne ba ñu nekkee ca la ñu nekk ci ab appartement privé la benn organisateur bi moo leen doon filmé te bam leen doon filmé ñoom ñëpp kenn yegu ko ci ñàkk a jom waaja daw tey yoo ci turu aade daal nee nañu moom moo fiiteel vidéo yi ñetti góor ak ñeenti jigéen ñi ci teg loxo nag fi mu ne defeere nañ leen di leen toppee attentat à la pudeur et collecte d'images à caractère pornographique waaw góori waay fi mu tol nii nag ñacca des ñu leen di wër moo tax ma ne réew mi toj na ay xale yu ndaw amuñu benn li liggéey lu dul ut appartement ne ca futteeku ba ne dung ne ca lu leen neex waajur yi xoolaat leen seen doom yi yaraat leen seen doom yi Sénégal nag xale yépp rëcc nañ musiba naaru lay mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje beneen yoon ci yeneen xibaaru buzz